dañu am léegi ni information yu wér yu jógee ci ki nga xamante ne nii mooy ministre bu yor mbirum xarale gi fële ca Congo mu ne yore kàddu kàddu kaddu gouvernement wu Congo mu ne ndaw yi fi dugg ci réew mi dañ fi dugg ak ay kayit yoo xam ne leeru ba pare ñëw fi di jàngal sama waa dëkk naka la ñuy defaree ay ay ay maanaam ay bomb ay bomb ay ay yàq luy yàq ba noppi dañoo bëgg a yàq li nga xamante ne moom mooy seen calendrier wu élection ba pare def fa li fi amoon Burkina Faso mu wax nag ne li am Burkina Faso te ay Y'en a marre ak Balai Citoyen def ko fa du am fii ci Congo kon dinañ jël seen ay mesures loolu day wane ne rek ñu ñu li raam ci ñag ba la jëm te ñi fi ñu jëm ñun mooy ne dañoo bëgg a chargé ñoom Fadel Barro kii Félou Malade tëj leen kaso pour wane ne loolu du dëgg ay lay la reçu bii nii mooy reçu bi nga xamante ne moom laa jëlee ci ambassade bi ndax man mii naka noonu waroon na nekk waaye Y'en a marre moo ma yebaloon moo taxoon demuma kii mooy reçu bi wane ne ambassade lañu jaar lii mooy visa bi nga xamante ne nii waa Congo ñoo ñu ko jox te ku ne xam na Fadel Baro ku ne xam na Fumalaat ku ne xam ne caat te këyit yañ fa demee mooy këyitu Y'en a donc wéroon na wér na ne ñoom dañ fa ñëw ci turu Y'en a ndax ay ndaw yu nekk ca dëkk ba ñoo ñu invité pour benn séminaire. kon lii information bi du dëgg li xam nag mooy ne comme ñoom dañoo jaarale seen wax ci voix bi nga xamante ne mooy kaddu réew ma. muy kaddu ki nga xamante ne moo ko yor ci kaddu nguur ga ñun dañoo bëgg suñu nguur wax ñu fu mu toll ci lijjanti yi parce que boobu ba léegi amuñu information bu wér ñi ñi wax naan ñu am na kuñ ci dóor ba loxom bi dafa damm am na ñun ci dóor ba mënatu ñoo jóg doxaw di dox te xamuñu kan la ci xamuñ ndax Y'en a marre la xamuñ ndax Balai Citoyen xamuñ ndax ay congolais lañ dañoo bëgg suñu waa nguur entrer en contact ak ñun maanaam jokkoo ak ñun xamal ñu li am li wér mooy lan ak naka la ak nan la ñun xamuñ fan la ñuy entrer ak ñoom contact ñoom xam nañ fan la ñuy entrer ak ñun contact nañ ñu entrer en contact wax ñu li am ñu xam ko waxuma ne defuñu dara mais la ñuy jéem ñun xamuñ fan lañ ci toll te suñu ay nawle yi ñu jàpp seen i famille ñun la ñuy laaj ay question te comme dafa tegu ci loxo nguur nguuroo koy lijjanti nguur moo ñu war a informer nañu fii laa ci toll li tax nag ñu bàyyi doomu tubaab yëpp jàpp nag ñun ñi nga xam ne ñooy doomu africain dafa wane ne réewu tubaab yi seen nguur yi dañu am fermeté maanaam dañu am fulla ak fayda gu doy ne ku jàpp seen ndaw ñu taxaw ak nañ cee taxawee waxuma ne nguur gi deful fulla waaye nañu wax fu mu ci toll ñun ñu xam